Idrissa Balde maa ngi lay nuyu. maa ngi lay ziar ah, madame Moreau. voilà nga nekk coordonnateur bu jeune patriote du Sénégal foofu foofule ca États-Unis euh, membre COPIL euh, ca États-Unis ñu lay laaj laaj bu njëkk jëm rek euh, ci li nga xamante ni moom mooy force Ousmane Sonko ci diaspora parce que gis nañu ni Ousmane Sonko wala Pastef dafa am doole trop ci diaspora bi maanaam sénégalais yi nga xam ni ñi ngi bitim réew dañu adhéré bu baax ci projet bu Ousmane Sonko ci projet bu Pastef lan mooy expliquer fekkee loolu. voilà jërëjëf à ah, madame Moreau maa ngi nuyu vraiment auditeurs yi nekk di la teew lu ci moment bi yëpp di rafetlu invitation bi donc euh, lu simple la sànq comme ni nga ko waxee ci nasaraan rek donc boo gisee diaspora bi mooy euh, presque moo njëkk a ñi nga xamante ni ñoo njëkk comprendre projet bi ñuy wax autour du président Ousmane Sonko mooy que ni boo tukkee di nga gis différence bi xam nga surtout ñun réew yi ñu nekk xam nga ni réew yooyu di doxalee donc lépp jaar yoon. xam nga ni ni di respecter ni ñu koy waxatee loi bi euh, ñiy gouverner bokk ñi yor réew mi di respecter loi bi institution yi ñëpp di doxal di jaarale ko yoon di ko jaarale yoon looloo tax diaspora bi après ñun tamit gént boobu la ñuy am pour que ni Sénégal ëllëg di mun a demee noonu donc bi gisee nag vraiment président Ousmane Sonko ñëw ak kaddu yi dëggu yi xam nga wax ni carrément que ni nañu changé système depuis bi ñuy émettre indépendance yi ñu amee ba léegi li fi nekk boo xoolee même chose la à chaque fois président yi fi jaar yëpp daanaka boo xoolee li ñuy rawante du bëri donc tant que génnuñu ci système boobu noonu changé carrément doxalin gëmuñu ni Sénégal dina mës a développé donc looloo tax diaspora bi na vraiment gëm-gëm boobu ak yaakaar boobu la ñu am ci président Sonko moo tax ñu jàpp ci voilà ñëpp boo xoolee quatre-vingt-dix pour cent ci bi. Mm. daanaka ci ci ci Pastef la ñu quoi. waaw Pastef boobu jógoon ne day xeex système bi euh, système bi tey daal di koy wër ndomba ànd ak moom loolu ban explication ngeen di jox euh, sénégalais yi par rapport ak loolu. <laughs> ah Modou Modou waaw. waa système bi ñoo leen wër ndombo fi ñu toll nii de. voilà <laughs> waaw ñu bëgg a tooñ ñëpp loolu la ñuy wax ba tey comme ni ma ko waxee woon sànq aussi xam nga euh, politique euh, da ngay da ngay da ngay dolli waaye doo wàññi quoi loolu nag waxin la nekkul ni que ni ni ñu koy waxatee ñun dañuy ànd ak ñoom xam nga di di système bi ñuy wax mooy que ni ñun suñu idéologie bu Pastef bopp loolu depuis projet Pastef bi ñu koy jóg a tàmbali xam nga dara changé wu ci léegi nag contexte politique dafay toll foo xam ne xam nga donc da soxla ay nit parce que politique booloo la quoi mooy mooy indi doole donc xam nga ni ki fi nekkee instant bi gis nga chaque jour am na ay changement yoo xam ne ñu ngi dem ci moom donc bu fekkente ni ñu booloowuñu aussi ci opposition bi ànd kon kenn du mujjee après xam nga donc du ñu mujjee am lu ñu bëgg mais loolu nag ànd du yàq dara du gàllankoor dara ci ñun suñu gëm-gëm depuis le début que falu mooy idéologie bi nga xam ne xam nga donc soppi Sénégal soppi doxalin bi ni ñuy doxalee surtout ak tubaab bi ak contrat yi fi am loolu dara du ci changer incha allah donc wala Mm. le fait que ñu booloo loolu loolu bu bu changé wul dara ci suñu ay doxalin. mais euh, loolu ngay wax rek ñu nangul leen ko mais en tout cas nekk na loo xam ni xel mënu ko nangu en fait euh, euh, Idrissa Balde élection tamit bala ñuy ñëw ci élection présidentielle sax bu deux mille vingt quatre bi dañuy gis souvent ngeen naan projet projet projet mais c'est que lan mooy ce fameux projet de Pastef ñu bëri sax dañuy jàpp ni affaire bi c'est mythique quoi dafa am lu làqu si biir lan mooy seen projet boobu. projet bu nag pourtant nag madame lu yomb xam la quoi. Hmm. projet bi moom mooy comme ni ma ko waxee sànq mooy que ni d' abord dañuy soppi doxalinu Sénégal bi mu àndee amee indépendance ba léegi dañoo gis ni boobu ba léegi nii façon bi ñu doon gouverner fii nii dafa dafa dafa des jaarto yoon. Mm-hmm. donc projet bi moom mooy lan mooy que ni soppi d' abord contrat yi xam nga fii ci bu am na contrat yu bëri yoo xam ne fii nii boo xoolee entreprise étrangère yi ñoom ñoo ci teg loxo alors que entreprise locale yaa ngi fi tey jii mënoon jël place boobu loolu yëpp a la. loolu loolu d'abord dañ ko war a teggi tegee ko ne leen leneen ni mooy que ni aussi apport xam nga donc dañoo créer sax lu ñuy wax MONCAP sànq dama ko fàtte woon wax mooy que ni MONCAP mooy mouvement des cadre loolu incha allah bis ñu demee ba jël réew mi di ngeen comprendre loolu MONCAP mouvement boobu amul parti politique foofu waa APR ñu ngi foofu ak yeneen parti yépp bis bu yàlla ndefee ñu jëm ci réew mi poste yépp appel d'offre lay doon donc so nit ki sa profil rek ngay insérer comme ni muy demee fale ci état amine ci Occident yow nga xam ne dañ lay jël en fonction de tes compétences mais en pas en fonction c'est parce que nit ki am na xamante wala bokk am nga bokk boo xam ne mun na la jàppale xam nga donc loolu mooy loolu pour xeex la li nga xamante ni mooy que ni injustice bi fi am boobu ba léegi mooy nit ki am background bu baax maanaam jàng ba am ay lijaasa te fekk mënuñu la jël ci poste ndax politique donc loolu moo waral man kat boobu taxaw ko ñu yàlla incha bis bu ñu faloo bu ñu nekkee ci ci ci ci nguur gi donc appel d'offre la poste yi di doon donc nga xam ne da ñëw rek fekk sa profil ak parti politique boo mënti bokk. Hmm. ñu jël la selon yow sa expérience mais pas selon ay xamante. Ah, donc yooyu yëpp ci projet bi la hmm. loolu lépp bi la <laughs> j'espère que bu su ngeen toogee si euh, réew mi ku boo bokk APR bu postulee du ngeen ko génne j'espère bien <laughs> léegi euh, Idrissa Balde élection présidentielle 2024 daanaka yegsi na gis nga ni sax pratiquement campagne bi commencé na euh, candidature Sonko est-ce que boo moytul du yàqu ak dossier Sweet Beauté bi waaw donc loolu dossier boobu ñëpp xanaa xale yu ndaw yi sax boo leen waxoon ci loolu ñu ñu ton ñu andi la tontu bu leer que dossier boobu du dara du dul politique. xanaa xam naa su ma la posé waatee question bi yow madame Moreau di nga ma naan man dama neutre man ñun duñu wax ci loolu mais <laughs> mënoon naa la ko wax sax yow nga leeralal ma. parce que gis nañ fii di fi xew yëpp ba ñëpp ne woon ni dossier boobu dañ koy tegee ne le parce que am na audio yi fi génn ba ndey mbili gi si boppam. Mm-hmm. Adji Sarr mais xam nga gis ngeen donc mujje juge bi fexe na ba yóbbu na nuñ ko waxatee dossier boobu chambre criminelle ñëpp xam ni loolu noonu lu mu wund mooy que ni lenn rek mooy seen objectif mooy que ni fanan la ñuy def tey jii ba président Ousmane Sonko bañ a nekk candidat en deux mille vingt quatre donc loolu lu leer nañ la ñun nag tamit comprendre nañ que loolu politique la xam nga dossier politique la tamit réponse politique lañ ci indi donte sax instant bi ñu ngi faagaagal suñu ay nit ñii ñu ngi jàpp tëj ñee ñu ngi rey mais incha allah du ñu xeex boobu ba ba fii nii ba nga xam ne quelques mois moo des fii ak yi ñu bàyyi muy daanu lépp daanu loolu duñ ko def waaw ñun tamit pare nañ pour xeex bi. pour xeex daal fu mu yem neex. <laughs> fu mu euh, ñu ñëwaat ci beneen procès euh, di euh, procès Ousmane Sonko ak Mame Mbaye Niang fi ñu toll nii xam nga ni mbir mi mi ngi ci loxol yoon gannaaw Ousmane Sonko bi mu tuumaale ne dañu épinglé Mame Mbaye Niang bi mu yore Prodac ci vingt neuf milliards de francs CFA mu ngi sukkandiku woon ci rapport u IGE wala IGF coow li bari na fi ñu toll nii mi ngi ci loxol yoon naka nga gisee procès bi. waaw projet boobu tamit mooy li ma wax sànq rek ñoom ñëpp a yem donc parce que xam nga Mame Mbaye Niang ñoom ci boppam confirmé nañu que ni euh, premier ministre bi si nekk instant waxoon nañu carrément que ni am na rapport bu amoon donc ci ay lapsus nga bëgg ci indi ay xam nga condamnation nit loolu xam nañu seen pexe yëpp mooy que ni seen pexe plutôt mooy que ni nu ñuy def ba tey jii nii empêcher candidature président Ousmane Sonko loolu kese la tey ñoom bu ñu bu fekkente ni loi bi dafa ne mun nañ ko ci teg amende xam nga wala bokk mun nañ ko ci wax carrément que bu mu waxati ni ni mel loolu duñ ko tànn loolu li lépp lu ñuy tànn mooy que ni naka la ñuy def ba mu am condamnation ak sursis pour mu bañ a nga xam ne bu boobaa candidature dina dina takk suuf ñoom loolu leen tax a jóg mais xam nga ni loolu warul nekk actualité li warul nekk actualité mooy rapport yi nga xam ne dafa épinglé mooy ancien ministre yi nga xamante amin ministre yi nga xamante ne ñu ngi ci gouvernement bi te kenn waxu ci loolu la ñu waroon waxtaanee tey ji mais pas ay xam nga ay mbiru. voilà ay mbiru mambañe yu kenn xamul. waaw eh, mais est ce que tamit seen leader jàddul boo demee bay wax yéen ni est ce que amul fu wóor foo ko war a teg parce que on a vu que actuellement Ousmane Sonko mi ngi hésité mi ngi naan waxuma sax rapport IGE mais IGF laay wax est ce que tamit foofu Ousmane Sonko n'a pas prêté le flanc carrément. foofu noonu boobu lapsus loolu ñëppay juum amin loolu lapsus loolu defe naa moom du yàlla xam nga donc pour ko wax doomu mun nga mun mun nga def xel ay njuumte ci ay wax mais du loolu loolu loolu defe na bu dee ci dëkk dëkk bu bu sérieux lañ nekk du tey ji loolu waral woon nekk débat xam nga ci waxtaan IGF IGF yu kenn xamul détail yu ndaw yooyu noonu bay warti konda amin euh, ni ñu koy wax tey yóbbu nit justice xam loolu Ousmane Sonko bu doon keneen la ba tey jii nii loolu du yegg foofu mais comme que si Ousmane Sonko lépp lu mu wax rek dañ koy réyal xam nga donc voilà bëgg a profité ci pour yàqal ko te incha allah ñun yàlla du yàlla moom dëgg rek lay àndal ko waaw ñu wax si leneen loo xamante ni yaakaar naa uh, ngi gàkkal un seen projet muy saagakat yi nga xam ni ñoo nekk passif maanaam ñu nekk si internet bi di saaga képp koo xam ni euh, li nga wax arrangé wu leen wala ànd ak Ousmane Sonko euh, mu mel ni sax yéen da ngeen cautionné saaga yi Idrissa Balde. ah non madame madame Sabine non demeewul noonu nag. wax dëgg fi yàlla et puis tamit leneen lu ma fàtte woon wax mooy que par rapport à ñooñu ngay wax ci internet bi xam internet bi dafa bari ay infiltration léegi. Mm-hmm. bëri na ci ñoo xam ne sax bokkuñu amiin ci suñu parti ñun. ñoo xam ne dañuy nekk des gens yoo xam ne dañoo contre suñu parti di waxee noonu rien que pour que su ko defee opinion bi naan maanaam askan bi naan ñi vraiment dañoo yaradiku président Ousmane Sonko kenn gënu ko yaru moom pour mu pour mu xool nit ci bët sax problème la quoi bu fekkee ne ko jege peut-être que dañ koy gis ñii ci télé bi léeg-léeg xam nga parce que loolu c'est normal politique mooy waral loolu xam nga mais nekkul nit boo xam ne dina kii loolu pas plus tard qu'hier rek ba ba rek loolu lañ doon wax que nañuy xoolaat xam nga surtout jeunes yi nañu xoolaat doxalin par rapport à régions sociaux yi ba ñu bañ a dériver parce que instant bi nguur gi loolu rek lañu bëgg ñu ngi ñuy jàpp di ñu tëj ñu ngi leen di rey donc diñ dem ba après toll foo xam ne kenn dootul mën a ah yoo xam ne dinañ nekk ci terrain bi pour xeex bi mm-hmm. xam nga nit ki ñu koy wax santaanewul aussi nekk ci réseaux sociaux di di saaga loolu loolu bokkul ci suñu jikko d'accord euh, beneen laaj euh, Idrissa Balde euh, di fan yi gis nga ni ñu bokk ci Pastef ñu baree bari ñu ngi leen di jàpp wax nga ko léegi sax euh, ban jàngat nga am ci arrestation yu yu bari yi euh, membre Pastef yu bari ñu ngi leen di teg loxo. Mhm. waaw moo lay won rek ni Pastef da leen nelaw. donc nguur gi fi nekk instant bi seen wax rek bi soo démb rek xam bërki démb ñu ngi toppandoo ndeysaan ci loo xam ne c'est pas naturel donc benn meeting bu ñu organisé woon jël xaalis jox ñooñu xam nga fële ci Pikine donc da ngay gis sax taxawaay ñun ñi nga xam ne li <laughs> naturelul dara bokkul ak ñun li ñuy li ñu defoon Kër ma Massar donc loolu mooy loolu mooy bonloo seen xol instant bi donc Pastef moom depuis bi mu taxawee ba léegi defe naa ci ci lañ dëkk bu ñu fi nekkoon di ñu ñi ngi ñi ñuy jot a ci prison yëpp defe naa fii la xam nga donc boo xoolee ba ci suñu coalition sax Yewwi Askan Wi boo xoolee ay membre Pastef rek la ñuy ciblé di leen jàpp. Mhm. gis yeneen parti yi ñu ne xam nga ñu ñi tey jàpp seen ay membre donc pro loolu pour te dire que ni sa personne qui dérange loolu mooy wax ji moo tax képp ku ànd ak moom rek na nga fagal ba pare nga xam ne à tout moment la jéem a voilà jéem a ci projet bi laaj bu mujj Ousmane Sonko lan la dencal euh, sénégalais yi nekk ci diaspora bi comme que yéen ko njëkk a jox bopp dooleel ko. dëgg la waaw loolu am na donc mhm. euh, euh, diaspora bi lu tax ñu am yaakaar ci Ousmane Sonko mooy que ni ñu bëri comme ni ma ko waxee woon sànq aussi am na bëri ñoo xam ne ndeysaan ñu ngi am ay idéologie am projet gis foofu nu muy demee bëgg indi fii ci réew mi mais ci situation politique bi li ñuy gis nii ak mal gouvernance bi fi am nga xam nga donc euh, sañu ñu jël risque boobu noonu ñibbi si fii bàyyi sa lépp le ñëw fi te tamit nga xam ne réew mi jaarul loi bi jaaralewul dara yoon. donc looloo tax diaspora bi am yaakaar que ni moom bis bu toogee ak ñu gis yëpp par rapport à li ma la wax sànq mooy ay genre mon cap lépp léegi loi moo koy doxal donc yaakaar boobu lañ am en tout cas te tamit gis ni fii diaspora dafa ñun ñun nekk fee dañoo sonn tout le ñu ngi envoyé xaalis parce que fii dara amul xam nga donc famille bi yëpp daanaka yow yaa koy gérer yow mi nekk fële ñëpp yow lañu yaakaar fin du mois donc am yaakaar ne bis bu toogee eh, loolu yëpp dina fi dañ au moins ñi dinañ mën a am liggéey am fu ñu jàpp te aussi ñu mun nañ ñibbisi fii sañ a investir parce que am na loi bu doxal euh, bu bu nekk fii ci ci mi. voilà Idrissa Balde maa ngi lay jaajëfal. jërëjëf madame Moreau man maa la war a remercier. voilà may fàttali yow yaay coordonnateur bu euh, jeune patriote du Sénégal foofu la ci États-Unis membre bu COPIL ci États-Unis d'Amérique ñu lay remercier ci sa disponibilité. merci beaucoup madame Moreau vraiment man tamit maa ngi leen di remercier bu baax a baax. man tamit maa ngi leen di remercier bu baax